téléspectateur u télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte di teewaat ci seen beneen numéro bees bu almumina almumina bu tey bi nag ma am mbégte di si dalal koo xam ni jàmbaar la ci waar yu muy yëngatu ñu naan ko soxna Waline Fall muy la reine du foulard et du chapeau soxna Waline maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay delloo ziar di nuyu. Euh, maa ni ma ko waxee léegi yow yaay la borom laareen reine du foulard et du chapeau ñëpp ràññee la ci wàllum defar ñi muuru ak grande dame yi ci seen chapeau yooyu ma bëggoon xam rek passion wu fulaar naka la ñëwee ci walin waaw Mariane sama diggante fulaar don la bu yàlla def ci man mhm. don la parce dama gisoon ni que euh, coiffure dafa am ma xam ni ñun Sénégal euh, musul mhm. moo ñuy valoriser mhm. en général sax africain Euh, tax loolu moom ma tax ma innové ci naa kon du loo xamante ne da nga dugg fenn jàng ko. Mhm. parce que bi ma koy créé di di ko def dama ne pourquoi pas Foulard mënuñu ko valoriser de telle sorte que tubaab beeg xeet yépp gis ci seen bopp. Mhm. bi ma koy def loolu laa ci jublu mhm. pour di gën a innové di créer euh, te boo seetloo ci biir liggéey bi. waxuma la ñun li ñuy soxla ñun nit ku ñun mhm. mais dama ko yaatal ba euh, su ma tukkee parce que tubaab yi dañu ëpp lu mhm. mhm. ñuy gën a yaatal ci wàllum fulaar bi lan la walin def ba dugg ci fulaar euh, dafa jàng école arrêté dafa jàng daara wala lan la def laata muy dugg ci liggéeyum fulaar waaw waaw parce que jàng naa école maa ngi defee sama primaire école neuf Pikine. sama mhm. euh, cycle secondaire maa ngi ko defee centre sauvegarde bu Pikine. Mhm. jàng naa ba troisième yàlla dafa def nag dama gis nga affaire bopp. Mhm. parce que à l'époque am na lu xewoon ñu naan cran. yàlla may ma ci benn don ma koy sant suñu borom. moo ma yóbbuwoon lu mel ni école internationale. maa ngi fa nekkoon professeur. di jàngale coiffure ah, professeur en même temps mm-hmm. parce que dox boobu ma yàlla mayoon dafa yàgg lañ gisoon ba tax ñu ne nañu indi xale bi tellement que j'étais trop petite ba dañu ut ku ma assister dëgg la ndax man ak élèves yi ay morom lañu te ñoom li leen fa indi ak man bokkul mm-hmm. dafa fekkoon ma am lu ma don bu yàlla def ci man danga ñëwoon pour perfectionner loolu moom non c'est juste pour échanger mm-hmm. ñoom loolu lañ ma soxlaa woon man professeur laa woon foofu comme gisoon naa jamono ji ak liggéey salon euh, joxuñu ko woon këdd ma soxla woon diplôme mhm. diplôme surtout international à l'époque école boobu dugg fa danaan jafe mhm. du woon lu yomb suñu borom moo ma fa yóbbu dëgg ndax dafa gis damay def xamuma jour bi ma gisee dana muy xale bii la ñu ne ko waa loolu moo fa dugal ndaa mhm. amee diplôme avant boobu jaar naa si salon Pikine ma jaar fa juste pour sept mois parce que sama comme bëgguma jàng man tam ma gis ni ci biir loolu dama faral di gis ñu naan intellectuel de haut niveau. Mhm. ma ne pourquoi pas métier war nga ci nekk de haut niveau. Mhm. ma jaaree foofu ñoom duñu joxe diplôme loolu moo ma dugal ci loolu. Mhm. troisième secondaire laa yem. dugg sama arrêté mais dama ne. je suis obligée comme sama papa dafa bëggoon jàng. naa ko prouver ci li may def. mën nga ci tàggat mu xam ni. Mhm. mën na nekk au niveau. Mhm. kon ñun ba tey mënuñu. Mhm. suñu borom rek moo mën. dëgg la ren beeg moom. léegi yow bi nga bi ci école internationale boobu après da nga ber sa daara di yëngatu ci wàllum coiffure laataa ngay ñëw ci wàllum fulaar. waaw avant école internationale jaaroon naa sama Pikine. sama maa ngi koy saluer de passage. dama fa dugg rek génnaat parce que sama papa il faut que ma am. diplôme ñëpp jàng bi mooy ñàkk jàng moo li ko metti mhm. mu nekkoon salon ba ma jaafa mhm. maa ngi leen de passage mhm. yàgguma fa dëgg la parce que li ma la wax rek sama papa jàng rek la bëgg man maa nekkoon doom di ko xaw a jaaxal léegi da nga fa jógee pour defi lan li tax yàggoo fa euh, après laa man doon liggéey benn tubaab buñ naan Marie Mario Lazafani Jolie and Fanny en 2000 euh, ak en 2000 waa dafay jiwoon fi benn compagnie maquillage indi ko parce que boo seetee pharmacie yu bëri à l'époque moo leen daan jox maquillage ñu koy jaay. ma nekkat ak tubaab bi. mu teg ma condition yu baax macha allah bi tubaab bi demee ci laa ne damay tijji salon de coiffure. mais mm. bi ci biir salon bi ma ko tijjee nag ci laa indi sama touche pour créer dama doon defar xam comme en général euh, tubaab bi booy liggéey ñoom dañ lay jàngal liggéey. Mm-hmm. day am façon communication booy def. buy jàll dëgg la ngay li ngay defar mooy jaay. mooy jaay mhm. exactement. pour nga jaay il nga wane ko. loo ko wane wul duñ ko xam. Mhm. je suis obligé may may defaraat ay bi macha allah. de bouche à oreille bi di jàll. ku def ñu ne la nga ne ku la defaral nga ne ci wàllin après kooku indi keneen keneen indi keneen. te te mën naa ne lépp laa doon def luy ci bopp. Mhm. yëpp la mhm. dëgg la. ndax suñu borom mooy mhm. mhm. mooy ah. fàttali leen ne ñu ngi dalal euh, soxna Waline Fall la reine du foulard et du chapeau. leneen li ma bëggoon également ñu wax ci mooy sa diggante ak ñi nga bokkal métier bi parce que damay faral di gis des fois défilé am keneen ku dul koo xamante ne du yow ci sa complexe nag maanaam kuy ñaw walla dara su defee tenue ba pare day ñëw jël ci Waline foulard. teg ko sa diggante ak sa ñi nga bokkal métier bi naka ngeen di dundee loolu waa waa alhamdulilah mm-hmm. alhamdulilah su ma toogee fii dinaa leen sant moom euh, sant kulli kuy tayee mm-hmm. kulli kuy teg machine rek dama lay sant dëgg parce que li ma lay wax rek ñun yàlla rek moo mën mm-hmm. su fekkee damay def dara ñu ngi bëgg dama koy sante sama borom des fois nga gis ni di défilé mannequin sax da ngay dégg ñu ne la ana chapeau yi. Hmm. wala nga dégg ñoom tailleur yi ñu ne il faut que wàllu ñu. Hmm. kon man ñooñu dama leen di ñaanal. Hmm. bu dee métier bi ma nekk tam domaine ci coiffure parce que comme ni may dundee ak yéen ñëpp di dundee ku xam liggéeykat dëgg-dëgg xam ni. day ñëwee xiif. dëgg la parce que en général man <laughs> heure añ parfois sax damay fekk ci liggéey bi. wala client yi ñëw mu déborder après comme ñun ay yaay lañu. ci nekk ay yaay faal teg ci mhm. dañu obligé bàyyi noonu parce que clientèle bi bu ñëwee sa temps du la ko may sax ngay toog di añandoog ñoom mhm. damay préféré ñoom ñu xewlu ba suur ba doyal mhm. xiif boobu ngay ñemee du la yàqal dara ci koor bi parce que des fois mën ngay xëy suba bu guddi doo lekk da nga koy miis peut-être jigéen dina lekkante mais da koy miis moo tax koor gi du metti torop ñu koy sant yàlla yow koor gi da ngay la sa kër wala da ngay dem naafila jàkka ja déedéet man nag kër ga laa nekk kër bi mooy jiite. heure bi ñuy wàccee <laughs> heure bi ñuy wàcc parfois day guddi doo mën a génnaat wala ci biir kër gi ngay nekk. te da sonn gravement ba boo duggee doo tal a génn. dëgg la bu defee euh, da ngay bëgg def li ngay def yëpp bët sa gën mhm. parce que jumaa ji sax soriwoon na. d' léegi balaa ñuy tàggatoo rek damay bëgg nga may téléspectateurs yi benn saar boo xamante ne moom nga leen di taril. Ah. waaw waaw bi comme jàng bi mooy jàng ci koñ yeeg yooyu ñi yi koñ yi nga jàng mhm. léegi-léegi ma dem jàngi xam nga sa yaay rek. Mhm. aji dama mhm. bi taxu ko bëri. moo tax comme mais looy jullee rek boo amee looy jullee rek sant yàlla waaw jàng bi mm-hmm. ci alxuraan li mu tax bariwul moo tax sama doom yi dëgg la sama doom yi daara nga trappé wu c'est bien franc waaw mm-hmm. may nuyu ñooñu de passage mm-hmm. li nga xam ni moom laa ci xanaa ma wax pour alaam ah baax na lu allahu ahadun allahu samadun lam yalit wa lam yulat wa lam yakul lahu kufuwan waaw kon mu ngoog soxna Waline dégg nañ saar bi macha allah léegi bala ñuy tàggatoo rek dañuy tàmm di def chaque fois dañuy may téléspectateurs yi benn ñaan léegi dañuy dem jëli ñaanu bis bi ñu dellu si waat ci plateau bi. mbokk yi ñaanu bis bi ñu ngi ko jagleel ñiy faral di tiit guddi wala ñiy gént lu bon laataa ngay tëdd da ngay def ñaar fukk ak benn basmala ma baamtuwaat ko. bas ma la ngay def laataa ngay tëdd boo bañee tiit wala nga gént lu bon. mbokk yi loolu moo nekkoon ñaanu bis bi ñaan yàlla may ñu dégg ak topp soxna Waline euh, suñu émission jeex na mais yow euh, complexe bi mu ngi dañ tàmm di wax euh, Waline la reine du foulard mais je pense que complexe bi yaa ko tuddee suñu mbàkki soxna loo. taalibeem nga. Mhm. loolu mooy li tax. mooy liggéey bi may def mu xam. Mhm. mais Serigne Mbacke borom tayif coiffure ku ko dégg da ngay wax tayif muy mhm. Serigne Mbacke Mouhamed man Serigne Mbacke euh, bu ñu nee Serigne Mbacke ne gaynde Fatma. dëgg xaw ma gaynde Fatma mhm. fekkewu ma jamono. mais li ma la wax dama teel sëy sama goro dama amoon habitude dañu amoon complicité sama maam la. suy amaan ay ay ay barkeelu ay xéewal yu ma ko daan defal ndax. su ma ayee ak yeneen yi. comme dama nekkoon kër gu mag. moom dafay faral di wax su jékki-jékkee ni ma waa lii nag su ma nee daf koy wax ma ne ko maam dimbali ma bu ko wax am ay ay affaire yoo xam man ak moom la. Mhm. comme sama ay ak yeneen mhm. su ko defee mu lii de mooy jikkoy gaynde Fatma borom noppeeg joxe. Mhm. ma ne ko kan mooy gaynde Fatma. mu ne ma moo fi nekkoon jamonoy Senghor. li ma wax ci gaynde ma ay seede yu ma yëpp yu baax. mu ne ma liggéeykat la woon mënoon a joxe xéewal mën a joxe alalam. kooku mooy gaynde Fatma ma ne ko kon ku fi nekk mu ne ma doomam ma ne ko kuy doom mu ne ma Serigne Mbacke soxna bi gëstu ci doomam di Serigne Mbacke Mouhamed mhm. yàlla def euh, may nuyuwaale njabootam mhm. ndax damay wax Sénégal moom sama kër Serigne la mhm. ñoom naa alhamdulilah macha allah allah loolu moo waral borom tayif quoi nga tuddee ko ko jamono jooju euh, jotuñu sax woon di toog pour gisee yàlla def mu am diggante lu amoon ci diggante bi mhm. mu am kàddu yëpp ma dénkoon bu ñëwee fekk mu tawat mhm. mu am kàddu yi ma dénkoon amoon na ku fa nekkoon si Cheikh Diakhaté yi mhm. ma ñëwee kàddu yëpp ma dénkoon damay wax alhamdulilah ndax dafa mel ni borom tayif moo nekk sama wet ba tey dëgg la ba tax na euh, te boo boole ci leneen loo xamul Serigne Mbacke lu mu am taaw la taaw la ça veut dire taaw la ci la ngay def comme di wax alhamdulilah ba tey. macha allah lépp tayif la. lépp tayif la. Mhm. muy waa euh, waa kër yëpp. Mhm. muy njabootam yëpp. may wax daal Sénégal mhm. moom sama sëriñ daal sama sëriñ moom la yàlla na yal na yàlla yokk ay leeram euh, kon suñu suñu émission jeex na soxna Waly euh, ma amoon mbégte di ko partager ak yow euh, di la remercier déjà ci ni nga ma defal xam naa téléspectateurs yi sax war nañu remarqué ni tey changé naa yow yaa ma defal fulaar bi maa ngi la ci jaajëfal di amoon mbégte di bokk ak émission bi comme ni ma koy waxee ñun dañuy bëgg di ku nekk la ngay yëngu Euh, ba dem ci ca kanam ñu indi la fii euh, pour valoriser liggéey boobu kon amoon nañ mbégte di ko partager ak yow di la jaajëfal di la bàyyi nga tàggatoog ñu lay seetaan. soxna maa ngi remercier Sénégal yëpp. di remercier àdduna yëpp di remercier diaspora bi di am sant ak ngërëm bu am commencement te am jeexal. Mm-hmm. di sant sama borom kër. Mm-hmm. sant sama borom kër di ko sant bu baax. Mhm. macha allah moom xam na man xam naa. <laughs> ndax daf maa jël bi may xale. dëgg allah may wax alhamdulilah ak njaboot bi di sant Sénégal yëpp. Mhm. kon mbokk yi li moo nekkoon seen émission almoumina bu tay bi jaajëfal partenaires yi ñuy gunge jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon di leen jaajëfal yéen ñi toogoon di ñu seetaan euh, dig daje ëllëg incha